asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo di ñu topp ci BFTV nuyu nañu leen nu ñu leen daan nuyoo tey nag bu ngeen gisee fi ñu nekk moom mooy ci ki nga xam ne mooy kër Serigne Mor Souran bu ñu nee nag Mor Souran mu nekk ab bindkat waaye nekk ab gëstukat jëm ci li nga xam ne nii moom mooy yoonu murit Serigne moor Souran moo bind téere bi taalif di ci wax li nga xam ne nii moom mooy yoonu murit loolu tax ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci téere bi nga xam ne bind na ko sëriñ Mor asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, seen Ali ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñiy seetaan BFTV di leen eh, sargal bu baax nu fas yéene dikk ci téere bi di Mouridullah ngir waxtaane ko. jaajëf eh, sëriñ Mor ci fay nuyoo boobule nga bind téere bi nga xam ne moom mooy Mouridullah tey pour commencer dëgg-dëgg boo ñu doon wax Murit. mooy lan. Ah, jërëjëf Seydina Aliou ci laaj bu am solo boobu euh, murit mooy lan xam naa euh, laaj la boo xam ne buñ ko dee tontu mën naa yaatu waaye mën nañ koo tënk tënk bi mi ngi tàmbalee ci ñu wax ne murit baat bi baatub arab la boo xam ne dafa jóge ci baatub iraada iraada mooy nammeel ki namm nag moom la ñu woowe murit kooka la mi namm mën naa doon lu nekk kon loolu mooy euh, primi ci wolof mën nañ ko woowee ab taalibe waaye nag ci prix mu yaatu mooy jullit bu dëggal ak njullitam soobu yoonu yàlla di sàkku ngërëmal yàlla bëgg yegg ci moom ànd ak sëriñ bu mat sëriñ boo xam moo koy gunge ci yoon woowu euh, ci gàttal daal mën nañoo jàpp ne loolu mooy euh, murit la ci des nag ay détails la ay mbir yu nekk ci biir euh, murit fan lay tàmbalee Eh, sëriñ bi mu àndal naka lay mel naka la murit war a sooboo yan melokaan la war a am lan la mën a lan la mën a jariñooy ban résultat la la la mën a am ci eh, yoon woowu mu soobu ci diggam ak boromam loolu lépp yeneen la yoo xam ne ni moom lañ dëxëñ ci biir téere la boo yéree téere bi détails yooyu yëpp danga nga ko fekk ci biir incha allah. wax nga ko muy eh, ab murit ci ki muy jokku maanaam sëriñam tey boo ñu doon définir li nga xam ne moom mooy jébbalu. lan nga ñu mën a wax ci maanaam loolu nga xam ni taalibe bi da koy def ci sëriñam muy jébbalu jërëjëf si naa li euh, jébbalu euh, baat la boo xam ne euh, moom lañ gën a miin waaye baat bi dëgg-dëgg mooy jaayante danañ ko tekkee aju waaye wolof moom baat yooyu yëpp du ko jël rek daxañ ko ci baatu jébbalu bu ñu waxee jébbalu ñu xam liñ ci jublu loolu sax léeg-léeg mu indi werante ñi nga xam ne seenu gisin day wuteeg sunu gis-gis dañuy wax ne yàlla rek lañu ñu war a jébbalu loolu lu xam la ndaxte yàlla rek la ñëpp jébal sa la ñëpp di seen mbir waaye nag wolof moom moo jëfandikoo baatub jébbalu ci palaasu jaayante ak aju loolu moo tax nu di ko tuddee noonu loolu nag la mu doon dëgg-dëgg mooy taalibe bi moom dafa jóg ne daa bëgg soobu aw yoon tey jii euh, nit ki jógee Touba bëgg a dem ndakaar faaw mu xam chauffeur bu xam yoon wi mu dugg ci otoom chauffeur boobu moo koy yóbbu noonu la jébalu demee maanaam dafa bëgg nit ki dafa bëgg sóobu yoonu yàlla te xamu ko mu gis koo xam ne nii jaar na ci yoon wi ba xam ko ba mën koo yóbbu mu dem daal di ànd ak moom kooka nag doon jëmm joo xam ne nii la mu koy digal lépp dafay dëppook li yàlla digle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko la mu koy tere lépp dafay dëppook li yàlla tere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko mu ànd ak kooku nag ciy jëf ay ndigalam ak bàyyi ay tereem ba keroog mu yegg fa mu bëgg a yegg. leeral yi am na solo ci wàllug euh, njébbalu waaye it murit bi jébbalu ba am sëriñam ba xam ko est-ce que warul tamit xam li nga xam ne mooy yoonu murit maanaam kañ lañ ko sos fondation li nga xam ne nii moom mooy euh, yoonu murit. waaw jërëjëf sëñ Aliou euh, loolu mënula la ñàkk ndaxte murit bi ànd ak nit ànd ak sëriñ mu di ko wan yoon. faw mu xam lan mooy yoonu murit ci boppam yoo yoonu lan la bu xamut yoonu murit ak cëslaay yi mu am ak keno yi maanaam fondement yeeg principe yi nga xam ne moo ci nekk du xam ki mu àndal ndax fa mu koy jëmee yoon wala am déet moo tax gëstu jëmmi yoon wi ci naka lañ ko sosee ak fan la sosoo lan moo nekkoon jubluwaayu Serigne Touba ci sos yoonu murit loolu taalibe bi bu ko xamut bu ànd ak nit nit ki di ko diri jëmi ko feneen furul yoonu sëriñ bi it wala yoonu yàlla du ko mën a xam moo tax xam ngi mënu ñàkk euh, sos googu nag nga xam ne moom la sëriñ bi euh, sos yoon wi buñ ko dee euh, buñ ko dee taarixal maam buñ ko dee bu ñu wax histoire bi mu ngi nekkoon ci atum 1883 ci li ñenn ñi wax donte ak wuute am na ci mu tolloog ci atum gàddaay gi 1301 Sering Modou Lim Diop Dagana non la ko Sering eh, serigne bi mi ngi ko sosé mbacké kadior booba mbacké kadior waaye juróom sëñ Mor Anta Sali sanc légui nak bi nga xamé ni serigne Mor Anta selim nekk na fa ba genn aduna serigne bi da wëy yor liggéey bi nga xamné mom la waaye juróom yoroon bi mu ab dir bu gatt nak ci la amé ndigal lu jógee ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam moné ko nak nga soppi ni nga yaré manam bu leemati jangalé waye say talibé ñi and ak yow nanga yar ci yitte ju kawé yitte ju kawé moy lan moy doota yam ci jangal len waye da ngay fex ba li ñuy jàng ngay len tarbiya muy nek ci seen jëm bu ni jang melaw nit ñu bax ñi da ngay fexé mu nek ci ñom bu ni jang lepp lo xamné ni safan la bu sunu borom di téré da ngay fexé bam génn ci seen jëm du du nek ci ñom moy yitte ju kawé nga xam ne la ko sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko na ci yar Eh, taalibe yi loolu sëriñ bi daal di koy tàmbalee eh, Mbàkke Kajoor ci at moom nga xam ne moom la ñu wax mag ñi ko njëkk a si bokk na ci sëriñ Adama Gueye sëriñ Massamba job Sam sëriñ Daaru asan Ndiaye sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ak eh, ñenn ak ñeneen ak ñeneen ba ni nga xamee ni ñu baree bari wuy nañ ko muy woote bu mag mu dem ba fa mu newoon sax xaw xat ci moom mu daal di jógee foofa dem tuxu Mbàkke Bawal ba mu nee Mbàkke Bawal am fa diir dem sanc Daaru Salaam mu gis ne ba tey soxla na fu gën a yaatu ci la door a euh, sànc Tuuba noonu loolu mooy sosug yoonu murit mbokk yi di leen fàttali ba léegi ki ñuy dalal moom mooy euh, Serigne Mor euh, Sourang di ab bindkat di gëstukat taalif téere bi daal di koy tuddee Muridulla tey boo ñu doon wax maanaam cëslaay yi cëslaay li nga xam ne nii moom mooy yoonu ko murit lan lañ ci mun jàpp. cëslaay yi yoonu murit li ñu ci indi dañu koy dëppaleeg ni ko sëriñ tuuba indee laaj bi nga ma laaj dañ ko ko laajoon moom kilifak ndar moo ko laajoon ci laaj yu baree bari waaye booboo ci jiitu ne ko taalibe yoon wu yoon wi ñu nekk lan mooy cëslaay lan mooy fondement bi sëriñ bi dal dina ko gëm yàlla goo xam ne dafay tegu ci xam-xamu tawxid jaamu yàlla goo xam ne dafay tegu ci xam-xamu fiq rafetal sa digg ak sa borom go xamne da fay taxaw fay teggu ci xam-xamu tasawuf lolou moy li nga xamne ne sëriñ bi teunkel nako ne ko moy ci islam lolou nak moy l'islam kon serigne liko tondu xamal ko ne yuruma lu bes lu ma naan nii ko defé waye l'islam ci bopam la ñëw ngir yeesal ko lil mustafa nawaitu ma yujaddidu jaddidu sunnatuhul garra wa inni ahmadu dama fasiyene yeesal sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal ko boole ko leeral ko nadafatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatahu sha'a rabbi ubayinu loola nag la tontuwaat ki doon laaj ne ko daal li nga xam ne mooy l'islam lislaam mooy cëslaayi yoon wi murid nekk kon yoonu murid l'islam yi kese la sëriñ bi dikkoon di ko yeesal murid bi nga xam ne moom moo jébbalu dañuy wax sóobu ak melokaan tey murid bi jébbalu ci sëriñam Euh, lan mooy sóobu ak melokaan bi nga xam ne nii war na ko am. soobu ak melokaan euh, bu nu ko dee leeral ku wax am murit wax aw yoon mooy yoonu yàlla aw yoon nag ku ci bëgg a jaar dem dangay ngay yoon wa loolu mooy sóobu bu nit ki sooboo nag dafa am yoo xam ne moom la soxla mooy ki sóobu yoonu yàlla am na ñeenti noonu yoo xam ne ñoo njëkk a taxaw ngir. ba gàllankoor ko ba du yegg ñeenti noonu yooya mooy àdduna bànneex saytaane ak euh, bakkan ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy baara ñoo koy baare faw mu xeex ak ñoom ba daan leen ku ci ne nag daa am nu muy xeex ak ñoom ci ñeent ñooñu bakkan moom bu bëggee xeex ak moom day fexe ba du lekk ba suur bu bëggee xeex ak bànneexam day fexe ba du wax wax ju amul njariñ bu bëggee xeex ak àdduna day fexe ba du jaxasoo jaxasoo bu amul njariñ bu fexe bu bëggee xeex ak saytaan day fexe ba du sàggane tudd yàlla yooyu faawu murit bi murit bi soobu mu jëfandikoo yooyu ba daan ñeenti noon yi door a mën a jël dëgg-dëgg yoon yi bu dul loolu rek ñoo koy gàllankoor ci yoon wi bu sooboo yoon wi nag am na yeneen mbir yu bari yoo xam ne moom lay taqool dana taqoo ko làpp fu mu toll di tuub yaakaar yàlla ak ak ak ak yaakaar joo xam ne day ànd ak ragal ko léeg-léeg mu yaakaar àjjana lool ngir yërmande suñu borom léeg-léeg mu xaw a yaakaar ragal lool mbugalum yàlla nga xam ne day équilibré tolloole diggante ragal gi ak yaakaar gi fu mu toll di sant yàlla di eh, gërëm dogal yàlla yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii moom murit bi soobu ay jaaruwaay la ay étape bu jógee fii jàll fee bu jógee fee jàll fee ba keroog muy mën a yegg loolu la ñuy wooye soobu loolu nag bu koy def ci lay ànd ak ab sëriñ nag sëriñ bi di ko wax del sikkar sàngam del jàng alxuraan fonkal julli juróom di ko jox ay digel, ak ay tere yu muy jëfandikoo di ko appliquer ngir maanaam mën a tegu ci dëgg-dëgg yoon wi léeg-léeg sëriñ bi ci ak xereñam mën naa yorandoo fukki ndongo ndongo mu ne mu yono ci yoon woo xam ne du bokk ak yoonu ka des mu mel docteur bi nga xam dafa am fukki malade fukki ma laat yépp bokk jenn tawat ku ne mu wutal la fajin traitement boo xam ne wuti naag sa morom ndaxte kii garab sàng mën na ko faj waaye nag effet secondaire bi garab gi am ci estomac am tax na mu wutal ko beneen kii nii moom amul problème effet secondaire ndax amul estomac mu jox ko garab googu misaal moom lañ ci joxe ci sëriñ bi tër bee te mën te mat lim doon ku ci ne rek ni sa ruu bindoo ak sa jëmm noonu lay jëflante yow ngir yoon wi nga soobu mu mën laa yeggale kon loolu mooy sóobu murit bi sóobu dafa am melokaan yu mu yor melokaan yi door ñëw da ngay jéem a nekk ab jullit dëgg aji gëm dëgg aji gëm yàlla nekk kuy jaamu yàlla di jëf santaane mi dëgg ca nam ware nekk koo xam ne nii day rafetal dëgg-dëgg ak ngëmam di rafetal dëgg-dëgg ay jëfam doon koo xam ne nii xam-xam lay jëfandikoo melukaani murit bokk na ci mu doon koo xam ne ni xam-xam rek lay jëfandikoo lépp loo xam ne ni leerut ci moom ci xam-xam du ca dugg waaye lu mu xam it day taxaw temm ci jëfe ko appliqué ko saa saa su ne lu mu xam rek amatul sañ-sañu téye loo xam waaye lu mu xam rek ci lu baax day taxaw temm ci jëm ko def ci biir loolu bokk na ci melokaan kanam day am ay teggin teggin nag ñaar la murit bi ay moromam la nekkal ak boromam teggini saaxiir mooy yi muy jëflanteeg nit ñi nit ñi ñett lañ am na koo xam ne ni yaa ko mag am na koo xam ne moo la mag am na koo xam ne yéen a tolloo ki nga xam ne yaa ko mag kooku da nga koy yërëm ki nga xam ne moo la mag danga nga koy jox cër ndax jox gi cër ci la yërmande ji di amee moom it ki nga xam ne yéen a tolloo loo natt ci sa bopp ba xam ne bëggoo ko la ko def nga bañ ko ko def loolu mooy ni ngay àndeek nit ñi ba tey it teggi ni nga xam moom ngay àndeek sa borom yi nga xam ne da koo digle yépp nga di ko def yi mu tere yépp nga di ko bàyyi lépp lu mu dogal mu neex la lu mu la teg ci ay musiba nga di ko muñ loolu mooy tënk gi nga xam ne mel murit bi war na koo yor doon koo xam ne yi moom murit bi ci ay melokaanam doon ko ëmbal jullit ñëpp aw yiw fu mu fekk ak yàq mu defar waaye moom du xalaate yàq mukk du jiw du fen du rambaaj du jaxase du njistal du def dara du doon kuy rëy ci yooyu yëpp ci melokaan yi murit bi di sàmmonteel ci la bokk. sëriñ Mor melokaanu sëriñ naka la war a mel man ñëw naa jébbalu ci sëriñ sëriñ boobu melokaanam nan la war a mel sama diggante ak sama sëriñ relation boobu it nan la war a mel. Euh, melokaanu sëriñ euh, bu delloo ci njàngaleem sëriñ Touba dafay wax ne ab sëriñ fa sayxu laa yu xaaliful musafa ab sëriñ mooy koo xam ne du juuyoog yonent bi sallallahu alayhi wa daal ne nag sëriñ am na ñetti xeet am na sëriñ boo xam ne ak jàngalekat la am na sëriñ boo xam ne day tarbiya yar am na sëriñ boo xam ne day tarqiya maanaam fexe ba taalibe bi xolam aju ci sunu borom moom mën a yegg ci moom ñetti xeetu sëriñ yooyu ñoo am sëriñ bu ci ne ci ñooñu am na lum soxla sëriñ bi nga xam ne day jàngale war naa am làmmiñ wu leer waxam xam ne nii kum ci jàngal dara doo jàpp leneen lu wuuteeg lam la jàngal naa doon it xam wàccuwaayu xam war naa doon it ku sàmm ba kenn du ko jam ci diineem wala ci àddunaam sëriñ bi nga xam ne day tarbiya war naa doon ku ku dégg jamono xam xam attey sariya yi yépp waaye xam xew-xew maanaam réalité yi am ci fi mu tarbiya war naa doon ku xam nit xam naka lay dindee ci nit dara ak na naka lay defee ci moom dara loolu sëriñ bi tarbiya da ko war a xam ndax nit ñi dañoo wute junjoon naa la ko sànq nit ki li mu laaj ak la moromam di laaj mën nañu bañ a bokk donte ñoo bokk jenn tawat kon day laaj moom mu xam nit ci boppam xam nu muy dugalee nu muy génnee day doon koo xam ne day xam ak soppaxndiku maanaam jamono saa bu demee ba soppeeku yeneen xew da ko war a xam kon ab sëriñ du kuy sëriñ buy tarbiya du kuy tëju rek ñu naan moom xamul àdduna xamul dara kooku du mën a tarbiya ndax daa ànd ku nit am yu xew ci jamono mu war a fexe bañ wattandiku ko yim leen wattandikuloo moom da ko war a xam ba noppi kon loolu lépp dafa bokk ci yi nga xam ne ni sëriñ bii tarbiyee da koy aajowoo sëriñ bi tarqiyee nag jëmmu lay doon yoo xam ne ni maanaam soxluwul sax muy nekk di wax wax ju bari waaye jëmmu lay doon ju bindoo noo xam ne bu ko nit ki xoolee rek amul yëg-yëg ci yàlla bu ko nit ki xoolee rek am cawarte ci jaamu yàlla waaye bu nit kii di wax ak moom nii sax di seq ak moom ay kàddu day jeqi ay xaalam di jeqi di jeqi pëstéefam ci waxante gi nga wax gi nga xam ne mi ngi koy wax ak moom loolu mooy melokaan yi nga xam ne day am ci sëriñ bu ñu ko dee tënk nag mooy sëriñ daal mooy koo xam ne jël na yoonu yàlla ba yegg ci sunu borom sunu borom gërëm ko mu ànd ak ay nit di leen teg ci yoon woowu nga xam ne du juuyoog mukk li yàlla digle lu mu teree ay taalibeem rek lu yàlla teral la waaye du ko teg mukk ci bàkkanam sëriñ boobu nag bu ko taalibe bi xasee ba am wareef bi bi war a def diggam ak moom mooy na ko bëgg na koy liggéeyal na ko jox addiya bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaati na góorgóorlu it ba lum ko digal mu def ko te lu gis ne bu ko defee sëriñ bi gërëm ko ca mu def loola war na ci moom it saa bu sëriñ bi wootee mu gaaw a wuy ji ànd ak ay bokk na ci ay tegginam bu sëriñ bi wootee dara rek mu gaaw a wuy ji bu sëriñ bi joxee ndigal mu gaaw a jëfe ndigal ja te bañ ca bañ koo jëf ci cëram te xolam di ko bañ waaye it mu bañ a doon kuy lànk ndigal li nga xam moom la ko sëriñam digal mu doon ko sopp ab sëriñam lool te nang ko liggéeyal lool nang ko jox addiyee lool ci ni ma ko junjee ci tàmbali Serigne Mor ma bëgg ñu waxtaan ci wérdu maxuus ñu bëree bëri ñu ngi naan dañ la ko war a jox nga soog ko jël da ci war a am ndigal ak wirdu wile tey boo ñu ci doon indil ay leeral yan leeral nga ñu mën a wax ci wirdu maxuus euh, jërëjëf Seydina Ali euh, wirdu maxuus euh, moom dafa laaj waxtaanu boppam bu yaatu ngir lim li ci lëmu lépp waaye si gàttal wirdu la woo xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngi ko jotee gànnaar ci atum 1903 ci tukkeem boobu mu fa demoon du ko fa tubaab yi yóbboo mu jete ko ci dëkk bu ñuy wax Sarsara wirdi wi da ko jële ci sunu borom mu jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil ko ko waaye nag ba mu ci jot du jotu gént maanaam ne ciy nelaw gént ko wala daal waaye dafa janoog jëmm ji nii ma janoog yow dafa nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko wirdu maaxuus bi mu ci jotee mu diggal taalibe yépp góor jigéen mag ndaw ñu di ko jëfandikoo fii ak ñu ngi e, dund bi mu ci jotee it newoon na leen ku yoroon weneen wird man nga ko booleeg wii di ko jëfandikoo loolu da nga ciy déggee yaatal gu Sëriñ Tuubaa yaatal mbiram ak xam gum xam ne ñépp lu baax lañ bëgg lépp leeslaa leslaama mu ne ku yoroon waneen wird moo xam xaadir wirdu xaadir nga yor moo xam wirdu saasali nga yor moo xam wirdu tijaan nga yor booba ñoo gën a siiw te mën koo boole wiir dama xuus mën nga leen a boole koo xam ne ni it leen a boole mën ngaa yem ci wiir dama xuus bi ndax sunu borom dogal na ni li nekk ci yeneen wiir bi yépp ci mbóot sunu borom defal na ko ci kon loolu mooy eh, wiir dama xuus loolu nag mooy ndigalu Sëriñ Tuubaa murid yépp waaye ginnaawu ndigal loolu loolu mooy ndigal lu matale waaye nag am na ndigalul jagoo ndigalul jagoo mooy ku ci ne am na kilifa goo xam ne jox ijaasal nañ ko maanaam am na ndigalul joxe ko dangay dem ci moom mu jox la ko jox la sàrt yi wax la doxalin wi waxtu yeeg yi ñu koy defee yépp su ko defee nga door koo mën a jëfandikoo maanaam daal kenn munta tëb tëb rek ne damay jël huile de maqus di ko jëfandikoo te amul ku ci am ndigalul joxe ko ku la ko jox bu dee nag da nga koo def yiwu tudd yàlla ak tiyaaba ji moom mën nga ko am waaye nag euh, jël wir de maqus moom nga xam ne ndigal Sëñ Tuubaa yi wax ne jël wird de maqus loolu mu wàccagu la ndax jële ko ci ko am ndigalul joxe ko sëriñ Moro boo ngi doon baaxe ci ndénkaane sëriñ Touba lan ngañ ci mën jox euh, ndénkaan yooyu bu ma ci dee dikk mën naa mën naa laa jox tegtal rek te ci bu ma ubbee téere bi ni tey wet gi nga xam ne euh, ci laa def ndénkaan yi maa ngi tolloog xeetu 84 lii la ci sëriñ bi wax jàppal euh, ñeenti mbir yi yow taalibe bi wattandiku lekk gu bari ndax day xañe neexitu jaamu yàlla ñaareel bi wattandiku nelaw yu bari ndax day xañe dund gu barkeel ñetteel bi wattandiku jaxasoog nit ñi ci lu bari ndax day xañe layu ëllëg fa sunu borom ñeenteel bi mu ne wattandikoo nekk ci deru nit ñi maanaam jëw ndax ku bari lu muy jëw bu ko tuubul du faatuwaale eh, ak ngëm yàlla maanaam tawxiid mu ne sang bu ñu wax Ibrahim ibnu Adham nee ne nee na liggéeyal na ñetti téeméeri wàlliwu yoo xam ne ku ci ne dénk nga ko ñeenti baat yi da gis bu ñu daanale wax ci ñu wax référence bi mooy lii mi ngi ci majmuwaatu soxra xët 180. jaajëf euh, Serigne Mor defe naa ne que li bëggoon mu leer yëpp leer na xanaa kay ku bëggoon euh, téere bi maanaam livre bi. foo ko mën a ak it euh, boo ñu mën a baaxee gi tamit naka lay démé bu ko défé rek ñu bayé la nga tagoto walé ki nga xamné ñu ngi seetaan téré bi meun nañ ko amé ci barab yu bari ci réew mi euh, mu tambalé ci masalikul jinan fi jakarlo ak jomaaji ku ñew fi nu nek wala ci sëriñ jidi buso libéré di masalikul jinan batay tey abdou sey sëy boutique durus meun na ci nako fa amé ahmad dam gay boutique jàll bëtt maraxib na ci nako fa amé Euh, bitu kas naa xadim sëñ Fallou Gueye mas na mënees na ko fa amee loolu lépp ci biir Dakar mënees na ko amee ci Mbour ku jokkoo ak sëñ Abo Ñang bu dee ci Touba mën ngaa jokkoo ak Baye Serigne Lay wala sëñ Aliou Diop Bangar kooku ci yittewoo rek mën na ko am bu dee ci bitim réew it ci feek fan yu néew incha allah danañ fi tàmbali di ko fa weccee bu dee ci biir réew mi juróom-ñetti téeméer lañ koy weccee 4000 francs bu dee ci bitim réew ñu nga koy weccee 10 euros. Euh, leeral yu ci nit soxla mën naa jokkook noonu ci 77 935 28 28 77 935 28 28 kon mbokk yi doon teewlu BFTV noo ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di leen jaajëfal di jaajëfal Seydina Ali mi nga xam ne moom la ñu seqal jotaay bi ak cameraman bi nga xam ne moom la àndal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf euh, Serigne Mor euh, Sourang ñu ngi lay sant bu baax euh, di la gërëm ci téere bi nga xam ne taalif nga ko tuddee ko Mouridula waaye ci disponibilité bi mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon seetaan présentation bi Seydina Alioune la woon Biram Faye ci réalisation beek caméra bi di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen émission jaa ngeen jëf.